ni ñu pour vraiment euh, jot li di matériel ne ko ko euh, def ñu ci bi dañoo inventaire xol ba xam matériel ñu ñu soxla ñu ko ci ben ben lettre ko jox ko te tamit nak dog nañ ñaari wër ba ba ba ñetti wër am ñu a vraiment euh, réagir manam indi nañ tay ay chaise ay ay ordinateur ak photocopieuse ñun vraiment liggéey bi étudiant bu soxla ay des fois activité yi activité de grande envergure lay doon di soxla ay chir sonorisation te ji nii dañuy ne waaw loolu moom réglé na ba pare mais nag ñaax nañ encore mu gën a defaat encore ñu gën a defaat si si étudiants yi maanaam surtout si si am liggéey te ji nii ndaw boo gis nag étudiant bu Kédougou day bëgg liggéey si société minière yi daanaka xam na ñëpp mën nañu liggéey si société minière wante mais am na ñoo xamante ne tey ji si ñun am nañ compétence ak profil bi

nek Kédougou nga xamni ni Kédougou ñoo dalal fofu permettre ñuy liggéey di produire or bi ñuy produire euh, di si fay ay lempo aussi d'ici mëna tedd ñom ñun aussi ñu delloo leen cër bobu, sen sen région may ñu à, dans la région de Kédougou motax ñun ñu ngi si liggéey ak euh, association bi ñi ko jiite ak euh, étudiant yépp pour xol nu ñu mëna def ba yombalal leen sen nekkin à Dakar nga xam ni lu leen fi indi mooy jàng euh, réussir seen jàng am seen diplôme bu ñu amee aussi seen diplôme mun a am fu ñu xëy fu ñu donc tey lu ñu fi dajale woon dañu euh, seet si woon wax ñu nag seen soxla dañu amoon ay soxla yu xaw a tar euh, si koor gi la woon soxla woon ay chaise soxla woon ay ordinateur ñu soxla woon aussi ay matériel de sonorisation parce que am na lu ñuy organiser fii au lieu ñuy dem di ko louer ak yooyu day xaw a jafe bu ko amalee seen bopp ñoom mën nañ ko gérer seen mën nañ ko sax ñoom seen bu keneen soxla ku ñu luwee ko am au moins tuuti loo xam ne mun nañ leen jàppale si ay frais yu ndaw donc loolu ñun aussi bi ñu jotee ñu xam ni c'est pertinent lu am njëriñ la lu leen amal njëriñ la euh, ñu taxaw si tey nag le matériel bi ñëw fi euh, ay chaise la ay ordinateur am na groupe électrogène ak matériel de sonorisation loo xam ne mu ngi ñu dikkee ay 4 millions 500 000 la ñu indi woon tey joxe ko ñu profité wala na discuter waxtaan ak ñom lu ñu yag def ak ak ñom euh pour yombalal len euh sen jang ak aussi ñom aussi amna na leneen loo xam aussi yitteel na len trop boy jang da ngay bëgg fo defee stage parce que stage moy tax nga am pratique hein parce que boy wut liggéey def sa CV dañuy naan expérience professionnelle fo mëna liggéey fo fo foo au moins dugg ci entreprise donc ñu xol aussi naka lañ leen di yombalé chaque année ñu wutal leen ño xamni euh, si association bi wala ñu joggé Kédougou am stage si mine bi lolu aussi ñu ci liggéey ba paré aussi bo amé ça wala bo paré bëgg nga xey ñu xol aussi Sabadola naka ñom lañu mëna amé liggéey bu ñu paré euh sen jang bon li société nak mu nekk mine wala mu nekk benen société euh do joxé liggéey rek pour joxé liggéey da ngay jox liggéey parce que sa entreprise daf ko soxlo parce que boy doxalé nonu à ah, sa entreprise bi day daan donc liggéey yu fa amone sax day mujj ñak lolu aussi entreprise bi da si baye xel trop lu am solo la mais ak lu si mënta nek ñun am nañu junni ak juroom ñetti témèr téeméer kat yu nek sa Sabodala xaj bi yépp région de Kédougou la jóge loolu aussi c'est important donc ñun bu dee tey suñu entreprise mu ngi défar xaalis di performer ñooñu ñoo tax ñu performer war nañ leen delloo njukkal té ça montre que am nañu performance tax nañ ba entreprise dëgg donc ñun dañuy sawar jëlaat encore yeneen employé ñu jógee si Kédougou ñi jappalé ak commune parce que ñoy suñu njaatige ñun seen ay seen ay suuf la ñuy jël parce que aussi seen ay tool des fois mine bi dafa am fu mu war a dox même bu fa tool nekkee il faut ñu négocier vrai que dañuy fay boo jëlee nit ki dañ koy fay mais fay bi rek du si yem boo jëlee doomam liggéey wala yooyu c'est c'est très important pour nous donc loolu priorité la pour ñun am nañ si ay plan yu leer ak ay programme ñu siy liggéey dinañ ko communiquer ak euh, étudiants yi dinañ ko communiquer ak ñu dul étudiant sax ñu fa nekk di wut liggéey parce que du étudiant rek mooy wut liggéey donc ñu fa nekkee ñu xam ni suñu mbébét suñu pas-pas mooy ñu nekk Kédougou gën a bëre gën a ful di liggéey si mine bi loolu aussi dalal seen xel en tout cas euh, du ñu mun a nag wax ñëpp ñu wut liggéey dinañ leen wutal foofu mais daal suñu priorité suñu mbébét mooy ñun en tout cas bu ñuy jël ay employés bu dee waa Kédougou ñu ngi foofu am nañu profil boobu ñoom la ñuy njëkk a xool balaa ñuy jël balaa ñuy jël keneen voilà loolu daal lañ si waxoon bu dul loolu aussi am na yeneen yoo xam ni waa Kédougou mun nañu jokkalante. jëfrante ak min bi lu dul rek emploi euh, salarié loolu aussi yeneen la yoo xam ni parce que min bi day jënd min bi day liggéeyloo yeneen entreprise euh, day soxla ay euh, ay ay marchandise ay bien donc nit aussi bu dee kee dugg boo peut être amo diplôme wala yooyu wala bëggoo sax nekk salarié ci wa indépendant mun nga créer sa activité min bi yombalal na booy liggéey di jox ay contrat nga mun a liggéey ba nga xam ne yow sax mun nga créer ay emploi am sa ay activité yooyu yëpp ñu ngi siy xalaat dinañ ci discuter ak euh, ak étudiants yi leneen li daal mooy immeuble yu ñu leen luweel fii ñu siy dëkk ñoom aussi bëgg nañu léegi amal immeuble boo xam ne ñoo ko moomal seen bopp. loolu daal idée la boo xam développé nañ ko ñun étudier nañ ko d'ailleurs ñoom sax ñoo def seen business plan indi ko projet boo xam ne structuré évalué jox ñu ko ñun bu ñu ko étudier gis nañ yéen a maanaa donc fu nek ni, ñun dañuy xol ak yenen partenaires yu fa nek, euh, conseil départemental Kédougou yenen mine yu fa nek parce que aussi ñun du Sabodala rek mais c'est vrai que Sabodala moy doyen des entreprises minières bu nek Kédougou mais léegi am na yeneen mines yoo xam ne ñëpp bu ñu parce que xamna ni ñun aussi nuñu amé amee ak soxla impacté euh Kédougou ak Édina ñom aussi xamna ni non la amé amee buñ bu xol naka la fexé ba dal euh, mbébét bobu mëna mëna mëna a ci a si jàmm.